salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu may bëgg fàllu bëgg fàllu dëkk ci Gàmbi bëgg fàllu depuis Gàmbi nga ñëwoon ci màggal gi tubaar fa kàlla yaa ngi bokkoon ci rang gi yàlla def na ziar nga yal na yàlla nangu na ziar alors euh, gi ak guddaay beeg xataay bi mu mel ni ëpp na ko ëpp na ko loo wax ci lool waaw moom di ñëpp luñ luñ ci daal rek euh, sëñ Tuubaa moom mbiram na paasi na loolu ndax euh, ku xam li mu daj ba tax ñun ñu am ñun jàmm moom moo ñu may jàmm kon si yow ñu sant ko gannaaw loolu nag balaa ñuy sant ndax bokkuñ sant Maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax moom moo ñu woon bunti ndax moom ba muridina waaye sëñ Tuubaa dafa doon ko xam ne euh, dafa def lu xam ne kenn defu ko wax lu xam ne kenn waxu ko am lu xam ne kenn amu ko dem fu xam ne kenn demu ko wax lu xam ne kenn waxu ko euh, dafa am benn bis ñu ko gars yi di ma laaj ma waa bëgg faalu mbiram sëñ Tuubaa de dafa am luñ ci doon laaj ma ne ko lu demee ni laan ñu ma lu demee ni wir wir mais nag waaw boo gisee sëñ maanaam li mu def def kenn defu ko kenn waxu kenn amu ko ndax sëñ Tuubaa fi mu dem dafa bëri ndax sëñ Tuubaa dem na du fanweeri yow ak ñaar yu xam ne fu nekk dem na fa yoo xam ne moom fu mu dem daf koo bind parce que dul koo xam ne moom lu mu def rek dañ koy neenal mais ñun laaj may ndax Sëñ Tuubaa dem dëkk ñoo gore tawuk indiloog Kurma Jaaw Akara Cameroun Tay Central Grand Massal Kablater Bisel Woli Lomé Akume Kutule Dawme Boma Bafili Kongo Besi Kongo Francais Luanga Brasili Kabenda Mayomba Lodiba Utuburiki Banana Boma Ketna Conakry ñoole Lambaréné foofu la dem foofu la fekk nag wiir wiir fi ñuy wax wiir wiir ci la juróom-ñaari kuy jinne moo sëñ Tuubaa moo njëkk am taalibe jinne moo am juróom-ñaari kuy jinne yu fa nekk ñoom bañ fa àggee dañ ko ne sëñ bi yow dañ ne lu waay wax ko ko sëñ Tuubaa mooy ne mu ne ko lu waay wax doon daa ko tontu mu ne ko fa kullu man sa'alani fal jawaab xam ne te yaaj ahlul kitaab ndax jinne juróom-ñaari kuy jinne woon géej ba yoro ba yoro tàkku naa ko kàlleraa ko kaas ki nuuru tamsir ñu ci wiir mu jóg mu ne ko bon na da ngeen wax dëgg te ko lu waay wax dëgg te mu ne ko fa kullu man sa'alani fala jawab xala wala te a kitab mu ne ko ban kabro jin kabro ba suñu wax na ko ayi sindi jin wa en mi jin kajin ka fi daaran tem subhanti dukinan beneen jine bi na ko bon ka suñu wax na ko kafaaka min kamimi kana na bu yara jog na ko bon tagrun karan ka suñu wax na ka kumusa kii katan kala kala kin kala kin ci la jini sukk ba liggéey ba pare nag mu war a dellu sëñ Tuubaa moom lépp lu mu def rek dafa jaar ndax balaay loolu dafa fekkoon sàmbalaw be dafa lekkoon keesu nguur Samba Lawbe moo tax nangoo dëkkal sëñ Tuubaa benn ci suufu Jolof yàlla natt ko moo bi ko yàlla natt mu lakk keesu nguur ñu won ko ci gént xamal ko ne ko sëñ Tuubaa rek moo la mën a xeetali ñu xamal ko sëñ Tuubaa moom moo la mën a xeetali sëñ Tuubaa ki la mën a xeet nag fokk na nga jaar ci ay nattum ay jaar-jaaraam mu ànd ak sëñ Tuubaa mu ànd ak sëñ Touba mu dem ba euh, ba virus googu may la wax ba mu toogee ba xam ne jamono jot na ndax jinne yi dafa am géej boo xam ne dafa nekk géej boobu dafa am rab bu fa nekk ñu ko wax xàq dër rab boobu sëriñ bi ñu mos a yóbbu foofu boo jàkkale moom rek bu ubbee génn rek na ngay faatu ba fa àgg nag sàmbaloo bi nag bi mu toogee mu ne ko sëñ bi yow de xam naa dugub la nit man nit laa damay lekk damay naan léegi nag mar naa xiif naa léegi naka laay def sëñ Tuubaa na ko doxal juróom-ñaari jéego dem ci géej gi loo ko feeg nga xiwloo ko te géej googu fi la rab bi nekk ñu wax xàq dër-dër sëriñ bu fa mos a dem sëriñ boobu moo moo la faat sambala bi ñu ko ne ebal mu jox juróom-ñaari jéego rab bi génne bopp bi ba mu juuxoo rek sambala dafa juuxu rek na ko màkke fii laa yem sëñ Tuubaa jël xalima ga bind ko sànni ko ji ngir dara ji solli sëñ Tuubaa na ko samba képp lu la doon lor lor naa ko man du ma ànd ku ñuy lor man du ma ànd ku ñuy lor samba loo ba leen fekkee ñetti woo la ngi toog bii ndoxam raxasi la bii ci yàpp la bii ndoxam naan sama loo be raxasu lekk ba suur naan dem dal da géex waaye bi muy dem nag baagi jub sëñ bi sëñ bi daal da muñ ma ko oh, samba mu ne ko mbàkke man de li ma jaaxal bi may lekk dafa am benn rab boo xam ne maa ngi lekk mu ngi wër bool bi waaye bi ma pare dafa dem gisatuma ko waaye rab bi boo gisee ndikk bi dafa te waaye bopp bi dafa rëy mu ne kooku mooy maam Cheikh Ibra Fall suñ dee soxna Jaara moo togg ñam yoolu yónnee ko fa mu ko doon xiwloo kon loolu moom euh, ñu xam ne daal comme ça temps bi ma ko daal waaw ñeemalekum ndax waaw. am na solo am na solo am na solo tawaat fa kàlla waxtaan am na solo riis na kii bëgg fàllo ku dégg ni muy waxee xam ne tabaarakallaa ku xam histoire Serigne Touba la naka noonu lan nga ñuy wax euh, sëñ Fallou mi nga xamante ne moom nga di peese bopp. waaw xam nga sëñ Fallou moom dafa doon ko xam ne ndax man euh, boo gisee ñuy ma tuddee bëgg Fallou boo maa ngi ay tuut tànk boo xam ne xaw ma sax luy murit waaye dama toog buñ toogaan ba nawet bi jeex bu ñu def comme taaje boon yooyu yi def. man dama daan ñëw di jël benn weñ boo xam ne bu ñu liggéey ba liggéey bi jeex boo dafa yàgg may jël benn ileer di ko tëgg naan maa bëgg faal koo ci wax da nga fekke déwén bu waxee ñu ne ma xale bii de moom waxee na maa bëgg faal boo xawma sa lan mooy mu waxuma la di xam sëñ Fallu waaye ndeke booba yàlla moo mën a rek sëñ ci wax sëñ Fall ko nga bëgg ko biñ toogee jamono boobu yàlla dafa ma dem ba euh, xaw a nekk mag doog a ràññeeku nag ñu turé ma waaye moo su si dëgg dëgg dëgg mbay laa tudd sant loo waaye turu bëgg faal na tax na fu ne nii boo demoon Gàmbi day rek fa nekk daayira Salaatul Faatiha boobu waa Cees la man daayira boobu maa ko jiite jàngee daayira euh, euh, soppe sëñ Saliou daayira sëñ Bassirou Mbacke daayira sëñ Fallou boo ko laajee si bëgg Fallou si Gambie man si ñu ko jiite ci la bokk kon sëñ Fallou dafa doon koo xam ne moom du tas yaakaar fecc ko la ndax képp koo xam ne yaakaar nga sëñ Fallou waxuma nag waxuma nga euh, bëgg-bëgg lu ko waaye nga yaakaar sëñ Fallou nga jël ne sëñ Fallou rek lépp loo xam ne yaa ngi ko uti ngir sëñ Fallou te da nga da nga koy am loolu benn baay boo xam ne dafa lapaj lu man ñetti at mu ngi mu ngi mu ngi feebar tànk yi mënut a dox biñ koo jël dañ ko indi ci benn moto yoo xam ne mooy moto yu mag yi nga xam ne dañuy sëf ay gerte bi ñu àndee moom dañ ko guuf teg ko ci moto bi soo ko ñëw ba fii Touba boo man maa ngi di waaye fàttaliku naa ko bi ñëwee ba fu ñëw bu ko ci kër sëñ Fallou guuf ko teg ko ci bunt bi suma baay boobu dafa raam dem ba sëñ Fallou na ko Mbàkke man dama lapañ ñetti at maa ngi lapañ léegi mënumaa dox sëñ Fallou dafa jël loxo li wallaay barke sëñ Fallou dafa jël bi teg ko juróom bi na ko jógal waay jógal waay waay saa ma jóg ba mu jógee dafa fekk ci kanam sëñ Fall sëñ Fall muy ba mu demee ba ci dëkk bi mu wàcc moto bi dafa téye ni rek tëppelu commencé fecc leen ci kër ga ñu la dof na dafa dof mu dem jëm làkk ñaan bi boo xam ne mu doon ñëwaat beneen màggal na ko sëñ Fall de dama bëgg de nga saxalal ma lenn daal di panal ñi mooy daal di der yooyu ak làkkam ñaan bi boo xam ne dootu fay mukk moom moo am dëkk ba fanweeri pat làkk bu mu am ñaar ngir yëpp nekk yëpp làkk yëpp dañuy tax ba mu des làkkam ñu ko wax Samba mu ci dañ ko dama ne ko naan ko kam si taxaw ngir maanaam bëggum bëgg sëñ Fall te man mooy suma baay bu ndaw mat sëñ Fallu man lépp lu ma ci naxee rek na man jaral na ma ko ndax man moom rek laa gëm dem nañ ba fii su ma ci siyaare nii su ma ñëw da da saa rang dama ñu ne ma xam ne kii moom jaruta kii ndax dama ci mos a yàqante ñoom benn ñëw bëgg a rang ñu ne ma téye may den man du ma xam naa su ma yaram kii rek ñu ne ko may ko